ndax semaine bi yaakaar naa toog nañu ba euh, waxtaan ci euh, comme bokk de sénégalais aussi euh, ñu bari bari bi li nga xam ne moom moo di décision bi génnee mmh. daf leen a jaaxal mais li ñuy gis rek moom mooy que juge bi dafa régler lu bari mmh. bari waaw wala sax ñu ne régler na lépp maanaam mmh. Sabasy dafa tëgg moom coon mi Ousmane Tamsir Coon je crois dafa daal di tulli kee dafa tëgg rek moom mu tulli mhm. te galañ bi da koo daal di pare sànni ko mhm. muy lu neex sénégalais yi mhm. parce que xam nga loolu fan lañu toll ci justice am indépendance ci lañ toll te maaxadi bu ñu seetee fi nga xam ne foofu la euh, régime bi jële ci problème justice ak fi ñu jëmee dañoo bëgg dem ci fu doy waar foo xam ne buñ fa eggee dina naqaree régler maanaam Euh, jàngat bi ma ciy def moom mooy du question parti Pastef wala Ousmane sonk moo am problème ak justice. Mm. fi mu nekk nii état ci boppam moom moo am problème ak justice. Mm. te xam nga bu réew eggee foofu. Mm. lu doy waar la ñuy wax. Mm-hmm. te euh, lu jara xoolaat la parce que buñ demee ba nga xam ne nii euh, comme ni ñu koy waxee ñaari pouvoir la yu mm-hmm. séparé wu. Mm-hmm. ñaari pouvoir yooyu séparé wuñ leen. ci ay comme ni ñu koy waxee. ci côté droit ak leneen ak leneen loo xam ne ni sénégalais mën na cee tënku ñu dem tey ji bay jaxasoo bay bëgg laale nday doy waar ndax nañu pousse fee Ousmane Sonko parce que waxoon nañ ko bee passé à chaque fois rek bu ñu waxee nañu jéggi yi fi ñuy wax dem ci li ci des parce que bu ñu waxee ne Ousmane Sonko bu ñu demee ba agent judiciaire de l'État dugal loxoom ci ñaari sénégalais yu seq da ngay xam ne kon mbir mi dootul ñaari sénégalais rek mhm. état la justice bu Sénégal. surtout que nag juge jël décision. daan man lii laa décidé. ngay dégg. de partout ñuy contester. ba ay avocat de l' état génn di contester ne juge li mu jël te juge bi. defe naa ñoom ministère des finances lañ bokk. lañ bokk merci beaucoup. Mhm. te juge boobu maanaam li mu génn ci décision du neex a contester. Mhm. dafa corsé li mu wax. waaw kay. Mhm. maanaam daf ko sécuriser daf ko sécuriser mhm. maanaam du yomb ba nga xam ne nii bu demee cour suprême aussi est-ce que dinañ am matadi mhm. ñëw di wax leneen lu dul dëgg mu wax mhm. est-ce que comprendre nga parce que bu ñu ko defee rek ñoom it ñu ngi défier li nga xam ne tey ji moom mooy seen bopp du seen bopp ba pare juste ci boppam dina gën a nërmeelu ci kanamu euh, population bi euh, ci kanamu état en même temps avocat yu état bi ñoom nee nañ dinañu user li leen droit may yëpp maanaam dinañ dem pourvoi en cassation est-ce que xam nañu communiqué boobu est que xam nañu mm-hmm. avocat yi tey la ñu décider ñoom <laughs> parce que yoon rek la ñuy wax mm-hmm. soo laajee ñi xam yoon dañ naan la mënuñu fee lal lu ñee laalliwul parce que bu ñu demee ba dossier Ousmane Sonko ex fii ba tey ñu ci yéeg a ko wàcc nii ñu dugalaat Ousmane Sonko ci biir liste yi nii xam nga la mm. Pa foog ko woon man fooguma ko woon mm. beaucoup de Sénégal leen gi mm-hmm. kon ñoom mënuñoo fi nekk nii la ñu yor mm-hmm. ak seen xam-xam xëy na bi ñu bëgg utiliser ngir défendre seen dossier bi leen état dénk mm-hmm. mais xamuñu e-, exactement ëllëg lan la suñu borom def te nee naa la euh, dafa am loo ci xam ne nii tam mbiru suñu borom la ndax gis nga juge bi wax naa ko bi passé martaba bi ko yàlla dénk moom mooy nag atte loolu hmm. benn martaba la ci marta ba hmm. yàlla yi comme ni mu dénkee médecin bi ne ko fajal yaramu doomu aadama bi donc bu fekkee ne nag yow yàlla daf laa cofal tuuti ci benn martabaam jox la hmm. nga ne nee la nee la deel ci àdduna nga yaakaar ne yaa ëmb lépp yaa moom lépp ba yaakaaroo uh, uh, uh, yàlla ak ay mbiram wala xalaatoo yàlla ak ay mbiram li mën a dogal ëllëg da ngay nax sa bopp te fii nii dañ koy wax waxaat ko mbir yi dafee feeñ mbir yi dafay feeñ ba pare li ci gën a doy waar bokk na ci tey ji ay mag ñoo toogoon ci mm. justice di caaxaan mm. toog ci justice bi mel ni kuy tëgg tama di mm-hmm. sabaru mais tey ay ndaw ngay gis ñu mm. révolutionné ay ndaw ngay gis ñu ne fii ñu nekk toll ci ci wàllum droit ak ñun li ñu jàng maanaam lii la texte yi wax te lii la ñuy dogal mm-hmm. mais lecture bi mooy lii lu ñu mën a def mm-hmm. lu palpable lu ñu mën a teg la mm-hmm. xale yaa fi nekk fi mu nekk nii di doxal réew mi te nii lañ koy ñaanee nii mu amee ci justice bi na amee noonu ci wàllu wépp mm-hmm. nañu nañu nañu na xale yi jeunesse bi dëggal seen bopp ci wàllu wépp xam-xam lañu soxla dëkk bi tegu ci yoon te bala muy baax tegu ci yoon mooy na justice bi normal na jubbanti ko taxaw xoj bu ko defee ay saba si fay ak coon mii daf ñuy arranger pour sunu ëllëg ak xale yi nga xam ne tey jii ñoom ñooy war a ñëw donc c'est à saluer mm-hmm. te it xam ne yàllaa ngi fépp daal waaw yàllaa ngi fépp mhm. mhm. paasan mais ñu gis que ni euh, collectif bi ëmb avocat wu état bi si ñu ko mënee waxee noonu mhm. ñoom it euh, am na leneen nit lu ñu wax ñu ne décision bi euh, elle n'est pas exécutoire donc est-ce que mënuñu xaar ne donc le temps muy am ak lu ni mel dina jël temps est-ce que it loolu it mënut a yàqal kile di Ousmane Sonko mu bokk noom nii na eh, lu ñuy tardeel benn moment nag glace dafaa jot ñu jox ko nit mu naan ka à un moment donné la jëndal guro jox sa noonu. waaw waaw ko xale <laughs> ah, <laughs> moo tax gis nga mhm. ci ci yu mel nii. Mhm. moo tax keroog ma doon wax coro. Mhm. di ko wax waa Pastef fa keneen ni am na fu ñuy toll foo xam ni day laaj nag ay nit jóg dox. nit fi ñu toll nii. man bu ma bu ma mënoon tey par exemple damay dem ci waa état bi ne leen lii jarul jarul dara ba leen kii mu bokk. loolu mooy dialogue maanaam dem leen ne leen hey sa wërsëgam la. yàlla te mu ci dëgg yéen mais loolu nit ñi ñu ngi koy wax ci télé yeeg donc état bi dégg na ko non wax wax ak dox bokkul hmm. dox dem ne yéen eh lii lii li ngeen nar a sonalaat nit ñi ci ay lan lu exécutoire lu ko doonul hmm. ku leen dimbali leen Sénégalais yi hmm. seet leen yàlla moo tax mënaan la kilifa yi bu ñuy signé nañuy moytu di signé eh, ñu leen di tegal ay verre bu mu nangu verre ya ku leen ko jox lànk leen wax dëgg ka leen jox verre rek bañ leen ndox ma baaxut ndoxab kii la. ndoxab ndoxab lagara baaxut. day yàq day yàq xalaat. <laughs> yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla mhm. wax dëgg wuy ma lii. Mhm. jarul dara gëm yàlla. Mhm. te saan keroog wax naa ko fi ma ne pourtant boo demee ki ngeen di xeex moo gën a sedd si yéen. xanaa xamoo léeg-léeg ngay bañ dara di ko di necca nag fekk xoolal. mooy sa xéwal. yàlla moo bindee noonu tey keneen est le problème suñu delloo ci ginnaaw. ñu ne waa léegi lan mooy tax objectivement ñi am obsession ci ne kii du bokk lu tax boo wax ak ñoom sax téléphone bu ma woon kar am na koo xam ne bu ma bu ma bu ma ko sañoon tey xulil yëpp naa ko yëpp boo xam ne bu ko woon téléphone léegi def ko opal ne ko allo xoolal xam nga lu maa njëkk a wax ora Mandela mm-hmm. man mi nga xam ne laalewu ma ci de mm-hmm. mu ne ma noono yaa ko takk ci nga bokk ma ne ko bokk ma ci mu ne ma sama yoon newu ci ma ne ko waa léegi lu xew mu ne ma du bokk wuy <laughs> ma Mandela sa waa yi du bokk ma ne ko sama waajal mu ne ma ma ne ko bokk ma fa mu ne ma ca bokk du bokk. Uh-huh. ma ne ko foo ko teg xulil lu ma wax. du bokk. du bokk rek moom fa la koy. waaw léegi quand les gens sont à ce niveau. Uh-huh. après di wut nag pexe bi ak lay bi ak raison bi ak prétexte bi. Uh-huh. ak ak ak juridiquement nu moo nekkee. waa cuuna boobu yow. gëm yàlla gënu ko après nag am ñenn ñu la naan déet saa lii du lu ndaw. jël réew mi jox bàyyi ko kii pour lan nu kaa bàyyi kii ak fi mu war a mun a yóbbu ak les risques ñenn ñu sax naan la booy n'a pas d'expérience ñeneen ñi naan la wooy mais booy tu sais aussi xam nga ak tubaab yi il faut faire attention on ne pas jël dëkk bi di ko jox n'importe qui waaye sarab tubaab. <laughs> je je veux dire. si mm-hmm. si si si maanaam il faut que waa léegi qu'est-ce qu'on va faire on va on va donner le pays xulli. Mm-hmm. à quelqu'un qui va gérer les tubaab qui est tubaab. qui accepte les conditions des tubaab. Euh, un larbin quoi. un type qui qui moom mooy doon ab tubaab bi. ñu jox pour ñun ñu am jaam. sarab tubaab. noo ko wax. yàlla moo bind yàlla moo bind ci àdduna. réew yi dañuy avancé. xulil réew yi dañuy avancé 2011 2011. bi français yi di wàcc. di wàcc di wàcc Mali. Mhm. xulil bañ fay wàcc malien dañoo génn di leen tàcc. xam nga lu tax ñu leen doon tàcc. Mm. parce que amuñu woon information. Mm. xamuñu woon li xew xamuñu woon ni kooku ñuy tàcc moo moo taal daay bi ñëw di leen ko fayal. Mm-hmm. parce que kooku moo dem fekk Xadafi Muhammad al Xadafi am alal ju dul jeex mu uñaane ka ka teg ci bëtam ni dëmm ngeen baal ma. vautour parce que dafa am loo xam ne nasaraan daf ko denc loon Xadafi ca histoire xulil. wuy mm-hmm. ma à 27 ans quand Xadafi prend le pouvoir. Mm-hmm. il vient trouver Total ak ñeneen. di am quatre vingt cinq pour cent ci pétrole ba comme tey Sénégal ni ñu amee quatre vingt dix pour cent ci ñun xulil Xadafi gàddu nguur gi ne leen léegi lii day deñ dootul nekk quatre vingt yéen jël leen quinze ñun ñoom moom quatre vingt cinq raak teg teg affaire bi mhm. imposé ko ne nii lay demee wala ngeen xam nu ngeen di def mhm. li li ko Occident bañee yëpp lool la mhm. maanaam dafa jël yëfam mu jël yëfam en quatre ans quatre ans Libyen du fay courant du fay ndox du fay école. du fay santé. addunaam changé wul. ressource mooy changé dëkk. Mhm. loolu la réussir mu réussir que ba dem ba nekk l'un des états les plus liquides au monde maanaam fi Amérique di amee plus de deux mille milliards de dollars de dette. nekk le pays le plus endetté. Mhm. non lii bi nekk le pays le plus liquide. tubaab yi ni lii du fi am. africains yi waroon lëkkaloo Kadhafi doon waya waya. Mhm. waya waya sàggan. ñu éliminer Xadafi mm-hmm. africain yi ne teg mu jur lan Sahel Xadafi mi doon sécuriser Sahel affaire ba tas tubaab bi nag am bunt ne yee yaay dañuy jël alalu libi mm-hmm. boole koog Sahel bi bu ko defee nag ñoom ay sàcc ay lagara yu bon tubaab yi mm-hmm. léegi nag li fi des mooy ñu ràññat la ñun suñu ay leader ñu xool koo xam ni am na personnalité sénégalais nag ñu ko amee yaakaar ci kenn yow ngal la yow bu dee yow yow yow yow waya waya nga Mm-hmm. yow amoo fitu lijjanti problème bi. Mm-hmm. Sénégalais yi am nañu yaakaar ci ku ñu yaakaar ne am na fitu lijjanti problème bi. Mm-hmm. mais même boo ci mënul dara sax yow bu yàq. bu affaire bi neexee nu bokk. waaye xeexoo àtteewoo xeex waye waye toog di nu bloqué di nu xañ. ku fi jàppaate te tegoo ci yoon yal na yàlla jàpp ne la ñàpp. ku fi dox lu dul yoon luy bloqué Sénégal yal na la yàlla sorale sunu ay niveau de décision fu ñuy signé. ginnaaw yow weer bu tawee rek nga signé lu bon yàlla boo fa yàlla boo fa jege. wax ak dégg voilà. wax ak dégg Coro di am na loo si yokk tuuti ñu dem. ci euh, beneen euh, leneen lu ñu war a waxtaanee muy euh, ni ki bi gis nañ ñu ñeen balaa balaa ñuy romb ah. foofu ma ma ma yokk ci parce que paasan ma sofaat ci parce que paasan dafa dafa wax léegi ñoo ñuy seetaana ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel ndax it ñoom it si lañ bokk waaw ñi nekk ci mm-hmm. biir réew ak ñi nekk ci biti réew ku si mel ni mm-hmm. Marietou Diop ah, mm-hmm. di sœur ci Barka Lakkal mu ngi nekk ca Espagne di ko nuyu bu baax Marietou ba àndul ak barka Mariétu ba àndul ak barka Mariétu àndul ak barka dafa dëggu rek hmm? njóobeen yi ma xam yëpp dañoo dëggu hmm. <laughs> waaw sama maam Jóob la sant ñoom ñëpp a dëggu <laughs> comme comme ni ñu ko waxee léegi rek hmm. parce que Paasan sànq wax na ba euh, duggu ci lu ñu doon débattre la fois passée semaine passée euh, ndax euh, tey jii wax nañu ne juge yi maanaam Sabasy ak lu ñu wax nii loolu la droit wax ñu bari loolu lañ jàpp mhm. sénégalais bari sant ci yàlla mhm. Mhm. donc ñu ne euh, justice mi ngi mi ngi dellu si ginnaawam est-ce que xam nga ni Ousmane Sonko bañoon Ousmane Sonko bëggoon dialogue tey jii lii ñu am nii ci justice bi as néew duñ ko am bu ko nangu woon lii ñu am ci justice bi ak néew duñ ko am te bu dialogue amoon ci seen diggante lii ñu amakus néew dootoo ko gis ci juge yi ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo génn feel laguñ ci nen jàng droit comme seen mag yi niñ ko jàngi wala seen maam yi ñëw wax droit xam nga euh, ba tax na euh, tey jii euh, dama naan Ousmane Sonko am na fu mu wane yoon mm-hmm. am na tam ñoo xam ne dañoo wàcc yoon parce que bu ñu jëlee le cas de Khalifa Sall mm-hmm. tey jii danga naan am na ci loo xam ne tey jii bu ko bi mu ko nangoo mm-hmm. tax na lu bari bari gën a reculer parce que ñun ñëpp bu ñu àndoon bañ def benn bloc tey dina am tey yoon bu ñu gën a wan maanaam juge yi wala sax ñuy ëmb justice mhm. comme moom ci lañ ko jaar